asalaamaaleykum yéen sama mbokk yi maa ngi leen di siyaare bu wér ana waa ñëpp rek maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ndokkeel waaw dama euh, bëgg a santaat rek sëñ ma euh, sëñ Samba Fall maam Samba Fall bu Amérique garaw mi am na solo lool macha allah euh, man mi nag vraiment bi ma ko commencé jël ba léegi vraiment maa ngi sant yàlla bu wér di yëg ak tan nag sama yaram bi daal vraiment. wax dëgg yàlla maa ngi ci yëg ak féex gu baax sax maa ngi ci yëg maa ngi ci yëg ak féex daal di sant yàlla bu wér nag waaw di ko gërëm ah, di ko ndokkeel nag moo oh, waa groupe bi ñëpp rek ak i bokkum tuur vraiment ah, lii daal maanaam ah, li may rëccu daal muy yéex ci dugg waaye vraiment maa ngi féex bu baax sant yàlla nag vraiment di ko gërëm di ko sant waaw damay ñaan daal yéen mbokk yi képp ku man doon ku gis euh, vidéo bi na nga fexe jël numéro bi nga woote ci waaw vraiment am na solo lool maa ngi koy sant di ko gërëm nag vraiment yëg naa ak tan bu baax sama yaram macha allah vraiment waaw di ko sant rek nag di ko ñaanal nag moo ko njabootam ak i bokkam ak waa groupe bi yëpp di ko gërëm ca vraiment euh, man garabam yi am na solo lool ndax bi ma ko commencé jël daal vraiment yëg naa ci sama yaram soppiku googu baax goo xam ne macha allah damay santaat suñu borom sant ñëpp nag sant nag ku tedd ki nag waaw ñu tedd ñi nag waaw macha allah kontaan naa lool nag waaw wax dëgg yàlla garabam yi am na solo lool waaw képp ku gis vidéo bi daal na nga fex ku sama audio bi daal. na nga fexe ba euh, fexe jokk nga fexe déggante moom incha allah kontaan naa nag vraiment waaw kontaan na macha allah waaw kontaan naa trop.